tey na bu ñu toogoon ci ministère rek wax nit ñi du ñu xam li ñuy wax dafa am mais ñëw nañu ba fii gis ngeen tëj nañu accès yëpp tere nit ñi ñu dem ci moom mais au lieu que njëkk ak teraanga ñu wax nit ñi lan moo tax Ousmane Sonko amul droit recevoir visite mais au contraire dañu gazé nit ñi gazé des députés gazé des leaders politiques gazé des citoyens euh, au nom vraiment de cette république euh, bananière ce n'est pas possible ñun suñu ay maam dañ leen tënkoon dem jaayi leen def leen ay esclaves du ñu nangu nag ñu toog ci Sénégal boo xamante ne da nga nit ki da nga koy tëj këram tere ko xañ ko droit am yëpp ñun ñu di ko nangu voilà donc loolu mooy li ngeen gis ñëpp ko gis na amul lu ñuy nettal voilà. voilà mi ngi noonu. grâce yi. waaw grâce yi bu fekkente ne mën nañu am voilà euh, Touré. Touré nañ dem na la ci kaw nañ dem ci kaw. waaw dernier a amul discours ak débat te commencé naa ko wax naa ko. mais comment ça va tu vas <laughs> bien. maa ngi lay nuyu bravo maa ngi lay seetaan fan yii yëpp ah. waaw gis nga ko de ah, ñu ngi fi de ñu ngi fi de wax vraiment. excellent excellent. discours bi tamit rafet na on a on a déjà fait. merci mais on ne lâche rien. mais il faut aussi qu'on qu'on qu'on invite les femmes. ñu xam ne combat bi seen bopp la. elles sont en train de de de de de réclamer. seen wàll ci ci ci ngu ci euh, ci parité bi. maanaam ñu jox leen seen ak mais aujourd'hui s'il y a des femmes aussi sur le terrain. ñi nga xamante ne gëm nañu projet bi tamit vraiment en tant que góor lan nga leen di wax. parce que jigéen ñi tamit jigéen dañoo am wàll ci réew mi te wàll bu bu bu mais wàll bu réeré wàll bu yaatu parce que ñooy baasu liggéey bi yëpp ñooy baasu lépp foo gis mu am waxuma sax soulèvement mais mm. qu'un peuple se dresse devant des tyrans wala des dictateurs wala lu ma mën a doon dans le monde bu si jigéen ñi ëppul bari nañ ci lool te souvent ñoom ñoo koy porter parce que les messages forts messages qui touchent ak ñu xam ni bu ñu jógee rek ça veut dire que seen askan sonn na mm. Mm. ça veut dire que seen famille disloqué na ça veut dire que perspective yi ñu offrir à leur peuple c'est pas bon mm. ñu jóg bu ñu jógee rek foofu la yegg te fa tey Sénégal yegg si na foo xam ni si on y prend garde bu ñu arrêté wul lii réew mi mën na dugg dans une instabilité wala dans un chaos boo xam ne jeex na. Mhm. moo tax nag jot na pour que ñu jóg. les hommes les femmes les jeunes tey toutes les catégories de la population sénégalaise ñoom ñoo mën a arrêté lii. parce que c' est une affaire du peuple. Mhm. le président Macky Sall n' un président élu pour une durée déterminée. dafa ñëw fekk fi démocratie même si elle n' était pas parfaite ci démocratie boobu lañ ko fal si lui maintenant il veut s'asseoir dessus torpiller ko détruire ko. pour mën fay il perd son temps le Sénégal n'est pas un pays qu'on opprime mhm. jigéeni Sénégal musuñu leen yàpp musuñu leen opprimer encore moins góoru Sénégal wala jeune Sénégal il va essayer il va se casser les dents il sera mis en déroute te moom mooy reculer maintenant c'est à lui de choisir est-ce qu'il va sortir par la grande porte il va sortir comme n'importe quel tyran. Uh-huh. c'est lui qui doit faire, prendre cette décision et loolu rek lañ ko Euh, euh, may na ñu jël euh, un simple citoyen tëj ko këram ay am di jàmmam ay. on est dans l'arbitraire on est dans l'arbitraire y a pas de loi qui permet ça code pénal bi amul dara lu ko def li ñuy def jaay doole la li ñuy def def lu leen neex la li ñuy def teyeef la booy jël nit di ko tëj nit du génn brimer ko barricader ko bloquer ko décision de justice la loolu juge koy décider mm. bu fekkee dañu ñëw dañ ko dem jàppi mu violer loi mais ku violé loi bu ñu la jàppee dañ la yóbbu commissariat wala gendarmerie mm-hmm. ils n'ont pas osé le faire parce que ñu ni tëj nañu Ousmane Sonko ñemewuñ ko mais alors bu fekkee ils n'osent pas assumer ça qu'ils viennent libérer sa maison ñu bàyyi ko parce que amuñu ci droit lii ñuy def c'est de l'arbitraire s'ils n'ont pas le courage d'assumer que dafa violer loi dañ koy tëj kaso ñemewuñu def loolu mais alors nañu ubbi son quartier bàyyi njabootam surtout mm-hmm. li ñu koy def du rek c'est sa famille ses enfants képp kuy ñëw ci moom ñu teg la loolu loolu c'est de la violation et c'est de l'arbitraire loolu tyrannie la. Mm. te il faut que ça cesse et c'est maintenant que ça doit cesser. merci beaucoup maintenant mu jeex merci beaucoup. voilà. xale jigéen ñi comme ñoo xamante ne ay jàmbaar ngeen mës a doon aujourd'hui au nom de la liberté man seen sœur seen xarit seen am di jàmm maa ngi leen di woo maa ngi leen di woo. ngir ñu mën a àndandoo ci njëkk ak teraanga ngir ñu mën a àndandoo ñu gën a mën a wan suñu solidarité ki nga xamante ni vraiment dañoo gëm projet sonn Macky Sall sonn nag yàq nañ suñu liggéey ñu ngi nii ñu ñëw liggéey sonn nañ ci Macky Sall quoi vraiment vraiment chaque manifestation lii mm-hmm. la république Sénégal boo xasee ni république dëkk yoon la. Mhm. ah chaque instant nii lay dem. waaw ñun ñaa ngi kaas vraiment. dañu ah dañoo tiire waat eh lacrymogène. mais tamit caabi oto gisuma ko. mais mais c'est quoi cette histoire vous avez vu. am na yu nekk mais mais c'est quoi cette histoire en fait mais lii lan la. ah ma woon xeer gi mais tonton yoruma xeer man damay def sama mais mais mais. waaw. téléphone bi dama ko war a teg. non non non non non non non non wuy ma wuy ma bul dugg ci yooyu. non bul dugg ci yooyu bul dugg ci yooyu. bul dugg ci yooyu bul mooy kenn lu mu la téye yow. waaw bu ko sax taxee. voilà c'est-à-dire que am na ñoo xam ne gëmuñu d'accord na ngeen bàyyi ñu toog. mais ñi gëm ay sénégalais lañu ah war nañu mën a dox ñaawtu euh, ko dem seeti ko suñu dëkk teranga parce que lii mooy tax ah, ñuy euh, bo ñuy def ay regroupement yu mel nii. bu nekkoon dañoo bàyyi ku dugg seeti ko nuyu ko xool ndax mu ngi ci jàmm génn rendre contre le peuple sénégalais ah waaye waa Sénégal la nii ñu dem ñoom ñëpp dañuy dem parce que kenn bëggul tamit sa bien ñu yàq ko wala ñuy toog di la gazé. ñun ñëwuñ fi pour xaru moo tax lii bu amee dañuy reculer dañuy replier wu dem taxaw ba ngelaw gi yóbbu ko ngelaw maam yàlla gi ñu soog a nekkaat ci mbir mi oh na la yàlla defal jàmm fi nga nekk fi nga la gënal fi nga jóge tey lépp loo xamante ne sii di daan na ko wax mbir mi daa mel ni gis ko tey il a été l'un des plus grands livres moom moom ci boppam bibliothèque la du sax livre bibliothèque la kii monument la. yàlla ko yàlla defal jàmm ah. l'ancien PDG du groupe Walfadjri. non maa gën a bëgg ci yéen waa Walf yal na leen yàlla defal jàmm. ñu ngi leen di xool di leen seetaan yal na leen yàlla defal cat bu baax seen liggéey nice la jaajëf. waaw yaa ngi ci jàmm ça va bien mais mais ku yor mouchoir gis nga ma mouchoir. waaw man dama kii. dama dama am mooy yow man ñaari paquet laa jël. dama am sinusite quoi non. Oh, am naa am <laughs> d'accord waaw ok. vraiment. macha allah jaajëf. jaajëf nii la. day nag ça va na nga def yow boobu ba léegi ci apporte ton soutien au leader Ousmane Sonko nëbbutu doon loo xam ne ci le fais à visage découvert puis le rôle que tu joues aussi est-ce que c'est évident comment est-ce que tu le nga xam ne ñun ay sénégalais lañu dañoo ni ay jàmbaar lañ a doon kon ñun bu ñu gënee suñu projet ñun dañ ciy dem ba jeex suñu parents jaaxle nañu suñuy xarit suñu ay am di jàmm ñu bëgganteel ñëpp dañuy dañuy képp koo xam ne sopp nañu rek dañuy jaaxle seen xol du nit mën nga ko tëj pardon excuse moi parce que lacrymogène nii la nit mën nga ko mën nga ko mën na sax génn àddina waaye sa liberté de pensée sa liberté d' expression allah kulli aal day law boo weddee nga xool Sidi Lamine lépp loo xamante daan na ko wax ci lu baax boo weddee nga xool suñu maam Abdou Aziz lépp loo xamante ne daan na ko wax ci lu baax tey xale yi ñu ngi leen ko jàngal kon aujourd'hui ñëwuñ fi nag parce que ay responsable la ñëwuñ fi pour dara dañoo ànd waa s ak waa Yewwi Askan Wi ak monsieur Guy seet ki nga xamante ni mooy monsieur Ousmane Sonko xool nu mu def loolu je pense que suñu droit la kon bu nekkee dañ fi ñëw euh, ñu ñu interdire ñu accès bi au nom de quoi au nom de quelle loi monsieur Sonko est-ce que moom ban façon type de sénégalais la man c'est ça loolu mooy question boobu laay laay laay demandé est-ce que c'est une simple question politique wala non non la man manque de respect bi man mosuma ko gis li ma nekkee ndey ndaak ba tey mais pourtant xeex bi métti woon na ak euh, euh, contre monsieur Abdoulaye Wade mais il a fait preuve de respect Cet homme est un grand homme qui a su vraiment prendre la hauteur. Il a su aimer et respecter tous les Sénégalais qui l'ont élu. nit nag bu ñu la élire nga war a protéger mën nga protéger parce que ay kilifa fi nekk nekkuñ fi pour yàq. waaye boobu ba tey ñu ngi ñuy gazé te yéen journalistes yi ñu ngi leen di gazé kon le respect là yéen tamit da ngeen ko war a demander voilà. c' est pas facile quand même. non mais c' est pas facile tey warul leen sax pour mën a reculer dañoo war a mën a respecté. voilà non man yëguma ko sax. yëguma ko sax léegi yow en tant que actrice am doon tu es tu es une personnalité de notre monde. tu te retrouves subitement dans le milieu politique. qu' est ce que est ce que ça n' a pas de conséquence dans le cadre de ton job. non en fait xam nga euh, à un moment donné man def naa plus de vingt ans télévision tey bu nekkee dañu may déglu. bu nekkee dañ may déglu ma am une certaine maturité. benn instant télévision lépp luy mode lépp luy émission da nga de côté. parce que jàmm mënul am bu liberté amul. tey quel genre de personne je serai aujourd'hui bu nekkee dama nekk ragal. ñu may wax lu bon ma nekk au devant de la scène parce que yombatul mais quel genre de femme je serai aujourd'hui bu nekkee dama am gëm je ne sais pas quel genre de personne je serai voilà. merci beaucoup Fatou Abou et merci. merci jàmm du am du il faut que les jeunes arrêtent de suivre les leaders. non non xam naa li ma la wax. xam naa sama ñaari kuréel yi lañ leen jàpp. ndey ndey ndey am na am na bi ne ah am na waaw maa ngi ko jël ba ba ana ana kele bi non man maa ngi fi am problème fay gaare quoi su nga gaare noonu baax na jikko yaa tax son waaw sans compter sos. mais mais mais lu xew. man vraiment. nañ dem nañ dem nañ dem. sont en train de garder. yow. ñii ni ñuy dawee bu ñu moytuwul dinañ gaañ seen bopp il faut ñu def il faut ñu def nànk. waaw teel na rek mel ne ko gis tax mu nii. tëli tëli nii. non sama mar naan. kaay ma defal la. non Macky Sall. bébé jox nga ma autorisation. nii la de waaw defal ko. <laughs> Eh, noonu la da nga koy ñuux nag ñuux ko ci biir. je t'en prie. non damaa mar naan de sama put bi wow na koŋ. waaw waaw wow na koŋ koŋ koŋ koŋ. sama ngattaan bi ngattaan lu muy jooy. <laughs> lakk imagine la massa chérie. am am fontul fii. nooy kontul tuuti waaw jëla jëla gàmm da ngay def naan nga denc ko denc ko de ko sànni doom bu góor la xoolal leen noo xam da ngeen gis seen kanam ak seen mais c'est ça quoi booy xoolal bu ñuy tëll xool leen li parce que bu leen demee ci gisu leen du baax da ngeen koy xool ba pare ngeen dévier waaye mais fu jëm laa xamul ana ana kii ana ana Abdoulaye ana ana leader yi ah ñu ngi foofu noonu mais est-ce que dinañ leen bàyyi ñu dugg ñoom à chaque fois dañuy dem foofu ñoom dinañ bàyyi ñu dugg mais tu sais même buñ la bloqué xam nga lu am important. mooy nga def nga li nga war a def. buñ la bloqué da nga mën a dugg quoi. yow tu as fait ton devoir voilà. muy sama ndey. yéen bàyyi leen suñu téeméer lu dama kanam laa ko teg. quand même sama kanam laa ko teg non sama kanam laa ko teg waaye yow bu ñu may jàmm waay.

xamaa dafa aas. dafa fàtte ah. Oh. dafa fàtte. tu sais li li man lii moom lay demal jàmm xam nga boo xoolee Sénégal léegi dañoo dañoo dañoo agressif dañuy gisante xoolal man saa yu ma gisee danger dama koy jël sama kanam moo ko wane moo tax des fois ma koy tourner ci man te du ma ko saa. non dañoo agressif. ma ne si bu koy madame bul filmé mais dañoo agressif léegi man je comprends pas lii yëpp situation yi dëkk bi ni muy demee nii moo tax léegi ñëppay agressif ñëppay agressif tout le monde. gannaaw mënoo dem noonu de. nekk fa. foofu naa ngi ñëw nag commencé commencé di ñëw naan naan. non non non waxuma noonu téléphone bi dama dégg gàllankoor. Touré ah. dafa nekk. dafa xam nga sama benn bëñ bi day métti. ah ok gis naa ko. waaw ah, day métti. da ko dindi. non. j'ai des maux de dents depuis deux jours voire trois même. Eh! mais Chou moom laa jox mais man man moom damaa mar naan. ma dee si am guddi. mais foog nga ñëw ñu dem ba ba ci àll bi sori. yegg bu ñu nekk. non mais foog ma naan. bon bu gënee bu gënee ba ma naan. day tàngal. man dama yëgul tàngaay sax man. daane daane bii bii ma kii ma jël. non dafa saf sap. saf sap la def Serigne Touba. waaw pour ñu soog a suivre nawet bi ñu ngi nii di dem CNPRP. on on nous a signalé que y a certains leaders qui sont là-bas. dañoo gaz ba fii dañuy lacrymogène wala yàlla saxaar ah. leader yi li ñuy li ñuy lacrymogène kon. mais am na luy xeeñ de lii xeeñ lacrymogène la fan la ah leader yi lañ lacrymogène ah waaw waaw kon baax na kon baax na ku yaakaar ni yow bokkoo ci kon baax na waaye yow. mat na may ko may ko may ko. eh non sa yére bi waaye yow doo jël sa yére bi nga def ko. yow yaa moom yére bi wéroo jëlal yére bi nga def ko fi nekk. eh lii sax na de. laa ilaha illallah. wuy ma. doo sax sax. am ndox. da ngeen bàyyi ba mu xam ngeen soog a dama mën naan. waaw yow dañoo xam ci tur bu dul noonu suuf ba mën naan ba mën naan. ah waaw bi gàllankoor bi. dinaa amoon ndox ah. dama mën naan dimbali ma waay mën naan. non sën mu ma sën mu ma waa. tey sax ma tuddee wow. waaw. ak saa yu bëri. vinaigre bi su duggee sa bët tamit beneen affaire la. <laughs> ñenn temps booy da laa fi gis. waaw waaw loolu laa xam <laughs> ñenn. man nag dinaa xeex waaye duma fàtte ni jigéen laa ñenn temps booy moom du ma ko def moom <laughs> may dem soir. gaa yi dañ ñoo gaasee gaasee ba ñu ngi toog ci benn bopp. gannaaw amoo mouchoir ah mouchoir. bi nga ñandoo nga yor ah ak ah merci chérie merci Massa de mais am nañu fi nekk. ah man fii laa dëkk. ah fii nga dëkk. désolé ah. kay grand bi. boo amee siwo sax baax na. waaw même benn siwo bu simple nii sax mën nañ ci naan. allahu akbar ndox yaa ngi en direct waaw waaw Mbaye Mbacke mi ngi naan ndox ne vous inquiétez pas. ah kan la. non am na sama la. ah dañ ma dégg. non naan naa naan naa mais suuf mar baral gaa mais naan naa. naan na waaye dina doon liggéey ba. dañoo pause uus uus dañoo pause. uus nee na mu pause kay. di ree dañoo pause. yow Cheikh Cheikh Cheikh Kouyaté mi di laajte kii fan na laa. école école waaw te dama bëgg nit ñi xam rek vous savez on aurait pu ne ne ne rien montrer du dëgg mais nous on assume même bu nekkee sax na day dama bët li nga xamante ne dañuy dund moo gën a sax fop la climatérique moo tax on recule pas voilà c'est ça la différence. et pourtant ñun ñëpp ñi dañuy jàng ñi dañu am seen liggéey ñi dañuy lijjanti maan yi fii benn daanaka ñëpp yi ñëppay nekk ay lijjanti tax mais lépp nañ teg. parce que benn instant sa dëkk bu soxlaa ah sa dëkk bu soxlaa dañ dem te ñun dañoo gëm yoon bu ñu nekk wala saf na lakk moo dem saf na mais ñu dund ci 12 ans yi moo ko gën a saf te bëgguñu dee teg 5 ans waaw donc euh, il faut se mobiliser massivement sortir massivement que chaque Sénégalais prenne ses responsabilités parce que l'heure est grave l'heure est extrêmement grave ce qui se passe actuellement c'est inédit dans l'histoire politique de ce pays comment un leader politique pour ne pas dire le, le, le chef de l'opposition ouais. a été barricadé. Non, lui, prenons-le, prenons-le le temps. On va faire une petite pause, le temps que nous noppaloo tamit naam et puis euh, voilà, partager ñu euh, gardé nañ fi ay député gardé nañ fi ay élus locaux gardé nañ fi leader euh, plateforme F24. xam nga ñu dem. ooy waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw jëloon ndox ah. verre yaa ko moom. kari bi oui suñu verre yaa gis nga ko ñu. xam nga dañuy baax. copain moom baax. maa ngi nii. waay. tey gis nga ko ñu. ci à moitié aveugle bi. marchement marchement. maa ngi xool. maa ngi xool. war a fi ne daw. maa ngi gis ko ay ma génn fi